waaw li ngeen si mën a jàpp rek mooy comme ni ñu ko baaxoo di def chaque année bien vrai que at mii nii change am na ay changement si côté bi ñu ko organisé mais toujours et il que dañuy fàttaliku toujours suñ mbokk étudiant boobu noonu nga xam ne nii da pour ay moromu étudiant ba tax mu ñàkk ci bakkanam suñ mbokk étudiant boobu nga xam ne nii si xeex boobu mu doon xeex ba tax mu ñàkk ci bakkanam étudiants yi am nañ ci ay aki yoo xam ne nii yu bari la donc loolu moo waral tey ñun ñu ñu dajeewaat comme ni ñu koy defee chaque année. pour fàttaliku ko pour montrer pour wan képp koo xam ne ni étudiant nga wala képp koo xam ne nii jege ñaaleem nga wala mbokkam nga que ni moom du mos a dañ suñu xol te du musa a dañ aussi suñu xel. waaw si question boobu noonu ñun yaakaar naa loolu à chaque fois bu ñu defee sortie muy man muy keneen ci ñi nga xam ne nii ñooy jiite étudiants yi message bi benn message rek la parce que tey université bëggatul am martyr. amul kenn képp ki nga xam ne tey bi ngay jógee sa kër di ñëw da nga ñëw pour jàng am say diplôme dellu sa kër jëriñ say waajur jëriñ say mbokk jëriñ ñi la jege. donc tey ñun bëggatuñ martyr di am université mais pour que martyr bañ am il faut que fron bañ am front aussi pour mu bañ am il faut que problème yi nga xam ne nii mooy pousser étudiant bi muy wàcc ci tali bi problème yooyu noonu ñu résoudre ko to problème yooyu du port social kese du bourse kese problème problème social la euh, sociaux la ay problème socio la mais aussi am na aussi ay problème pédagogique donc problème yooyu noonu yëpp ñi nga xam ne ni tey ñoo ŋànk njàng mu kaw mi tey ñoom ñoo toog war a toog waxtaan ci def de sort que maanaam yooyu dootul am wala bu ne même bu nekkee dina am sax maanaam ñu wàññi ko à tele sorte que étudiant bi dootul soxla di wàcc si mbedd mi ba muy am ku ci lor wala ku ci ñàkk bakkanam xam nga tey je pense que ñun ñëpp xam nañ mbas mi nga xam ne nii moom moo nekk ci àdduna bi particulièrement fii nii nga xam ne moom mooy Sénégal te bu yàggul dara yaakaar naa ñëpp dégg nañ ne université enregistré na ay cas Covid donc ñun en tant que responsable en tant que ñoo xam ne nii dañoo war a participer ci li nga xam ne mooy jëmale réew mi kanam mais aussi tey si li nga xam ne nii moom mooy xeex bi nga xam ne nii maanaam ennemi comme benn ennemi commun lañ am ñun ñëpp ñun en tant que étudiant élite de ce pays yaakaar naa dañ ci war a apporter suñu suñu suñu wàll donc moo tax ñu ne nañ daan ko defee dañ koy changer. avec non seulement yàlla dimbali ñu nag mu tombeek jour boo xam ne nii week la mais même bu nekkutoon week-end sax si même format bi lañ koy defee pour wan ni ñu ne ñun tamit. ñu ngi inquiété wu ñu ngi soucié wu ci mbas mi nga xam ne nii tey moom moo dugg ci dëkk bi et que ñun ñëpp ah dañ ci am part de responsabilité am ci wàll moom moo tax ñu doxalee ko nii liñ daan def comme togg laax yee kaamil yi muy bari nit yooyu yëpp dañ ko dañoo coordonné ak famille bi lépp lu nga xam ne nii moo ci war ñu def ko ñu envoyé leen ko ñoom ñu defee ko foofu noonu ñun buñ paree ñu def benn délégation boo xam ne nii nombre bu réduit lay doon dem foofu noonu saafante ak ñoom ñib si waat donc message bi may lancé bi may lancé pour jeexal di ko lancé si sénégalais yëpp di ko lancé aussi rawatina si monde estudiantin bi moom mooy ñu xam ne feebar bi nga xam ne nii moom mooy coronavirus bi feebar bu am la et que mu ngi ci dëkk bi rawatina biir université waaye tey ku ci nekk boo defee li nga war a def xam ne yow responsable nga xam ne yow war nga bokk si li tax maanaam mu jógee fi yaakaar naa dina fi jógee donc message bi ñu laajte étudiants yëpp mooy ñu respecter mesures barrières yi di takk seeni masque lépp loo xam ne ni daal wax nañ ne ku koy def mun nga si mucc donc ñu ngi leen di ñaan ñu respecter mesures yooyu noonu Thank you.